defar fa ay góor ba duy leen leeru yàlla bu wér góor gi yabal beey boroom kéemaan yi xam na xafu am loo xam ne lu mat da la ndax am na yoo xam ne soo ko tegee bët mën na laa jaaxal lool ndax doomu aadama léeg-léeg sunu sunu borom dana ko defal lenn ci liñ tuddee xarqu aada xarqu aada dafay jaaxal nit dafa nekk loo xam ne lu yéem doomu aadama lay doon waaye xarqu aada te mooy xotti ay baax maanaam li baaxoon li nga xam ne nii la baaxoon a mel ñu ñu xottil la ko maanaam nga nga nga bëtt ko wala xarqu alxaanun namusi atabia yi wala li nga xamee ne noonu la suñu borom bin defee temps comme temps nga xam ne dafa baaxoo tàmbali di dox ci ay heure suñu borom defal la ci biir xarqu aada yooyu borom xam-xam ulama wi dañ ko seddale ay xaaj yu bari yàlla dana ko defal nit koo xam ne jullit la te set pas-pas maanaam maanaam maanaam jullit boo xam ne bii dafa am pas-pas moom xam ne aqi aqida borom aqida saxiixa bu wér ba noppi nekk uh, nit koo xam ne dafay dafay dafay dafay al imtisaalu bil awamir nekk tënku ci mbiri mbiri suñu borom yi su boobaa sunu borom dina am lu ko defal ci jullit bu fekkee ab yonent tamit suñu borom dana am lu ko defal loo xam daf ko koy jox pour Euh, nit ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teet mu defal ko mu xotti baax loola dafa am nuñ ko tuddee loolu lañ tuddee sax bu dee ci yonent mu'jiza la tuddee muy muy loo xam ne dafa të ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teet ñu sàkk ko ci moom bu fekkee ne it ku mel ni waaju baax joo xam ne ak njaaxle dikkal na ko suñu borom dina ko wallu si léeg lekk ci kaw lu mel ni loolu borom xam-xam ñu ngi ko tuddee aw na muy muy ñeent yoo xam ne boroom xam-xam yi eh, wax nañ ko ta soo xoolee ci lu karim da nga ciy fekk lu mel ne soo xoolee suratul xamar muy muy muy muy eh, muy iqtarab iqtarabat as-saa'atu wanshaqqa al-qamar soo xoolee di nga gis ne wan shaqal xamar jooju yonent bi moo ko defoon te jamono bi mu koy def nit ñi toog dañ ko laaj ne ko su fekkee ab yonent nga defal xaral luñ wër wi kon nit ñi sakku nañ ko te baaxuutoon ñu naan ñuy wax ñi ñaan ñaan gu mel nonu waye yalla fekk ci ko ci ci saasi daan ne ko yëkkatil sa loxo junju jëm ci wër wi mu junju jëm ci sunu borom daal def benen liñ tuddé tuddee xarqu at tabi'i lol daal di daal di fet mel loxo bi dafa tege ci digg wër wi ñepp daal di koy gis mu fet koka katan gi ko sunu borom def ak ba bobu kharx la ci ci ci namus tabi'i sunu borom defal ko ñi tok di xol mu nek mu'jisa bokku na ci mu'jisam alquranul karim muy bati arab yi mu daan wax te ñam nam namp ci ñom arab lañ doon wax waye legi bu bati arab yoy moy alquran ni ba fi ne ci ñom so demul ci borom xam-xam mu jangal la ci xam-xam bobu do meuna deg alquran dañuy jang nahwu arab bayan mantikh mom lañ sukkandiko ba meuna deg alquran ak hadis kon nga gis ni lolu moy mucjisa mi gëna yéme waxuma la nak yimi wax ci biir beneen dajal ca digënté Moussa ak Khadir gis nañ ko ci waaye bi gëna doy war moy yambu sun borom defal na ko ci rab yi bokk te ci xéti wax yi la lolu ilham la ko sun borom defal nit ki gis nañ ko it ci diggante euh, yenen yenen yenen barab lu melni sayyidatuna Maryama doon yonent way sun borom defal na ko yu mel nonu daan gis recevoir ay ñam ñam yoo xam ne ci noor nga xam ne baaxoowu ñoo gis ba xaal wala yeneen ñu di ko ko indil te booba doon yónent du nabiul mursal kon dafa séddali ko ñeent bu dee nabiul mursal li wàcc ci moom loolu lañ tuddee mu mu'jiza bu fekkee nag ku mel ni tey lii nga xam ne moom ngeen di gis ci image bi nii muy mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ay taalibe lan ay jullit lan di ay taalibe yoo xam ne Eh, yàlla daf leen terale lii daf leen koo defal loola eh, karama la ndax loola waliyu waliyu la ko sun borom defal ci lay ci lay loolu lay feeñal ci ay loxoom parce que kii nga xam ne mooy seen seen seexul murabbi di seex Abdul Xafour Mbacke ibnu Mamoor jaar mbaki nga xam ne seex Mamadul Basri bi muy gànne jamono boobu sëñ Tubaa ngi fii eh, ci jamono sëriñ bi waaye juróom indi ko fa ca moom ba mu ko gisee rek la waxoon ci moom ne Abdou dama ko rus sunu ndax sunu borom da ko rus. sëñ Abdou Khafour bi mu ñëwee ba dal fii moo gis sama baay mu ne nañ ma ko jox maam ma dañ ne ko ah, kii di neexut a joxe ndax sama jarbaat la waaye ma yërmande moo tax ma téye ko ndax am ndeyam dundul baayam dundul mu ne ko nag loolu moo tax ma bëgg a jot ci moom. dama doon tere it nag yaayam taxaw ci naaj bi ne ko bul taxawatee teeg moom ciw naaj. Bim demé jox ko Cheikh Mouhamadou Basir mu tel ko terbié ci ñaar fukki at avant ñaar fukki atam fukki atam ak juroom ben juroom ñaar juroom ñet ci la ko seigne Basir ber yabal mi di wax moo andi ci moom moo taxa bi ma jébbuli ci seigne bi mu ne ndongo li la la doon wax ba tey nan ko def yabal nan andi jaamu yalla mais yab ma man de man na ma takko way mun ma takk der man naay dama ko ñew rek la la waxon ah buma amé amee andi andi waaye mënuma takk takk der moom piéti yabal ne mu ne ma yabal maa ne ko mbàkke mu ne ma yabal naan ànd ñetti fan bu na àndee ñetti fan ci gislu ci sa bopp loo xay gisuloo ko woon nga wàcc ma ca xay mutuma lépp sëriñ nga seet benee sëriñ jébbuli déglu li ma leen di wax bu baax nga seet beneen sëriñ jebulu ci nee ma ne tuuti nee na ma ne ah man ay sëñ bi danaa danaa am am ñetti fan ba xam lu lan lay def ci man ba ba ba mu ne da boo gisul ci sa bopp loo gisul woon nga bàyyi ma ci wut benn sëy ba xam lu may gis ci sama bopp nee na ma daal di eh, eh, eh, ne ko danaa fi am ñetti fan nee na ma daal di fanaan nee na boobu añ nañ ba noppi julli tasbaar nee na ma fanaan ba bët set mu woo ma ma ñëw mu jox ma gànnaay ne ma demal gori xeer nee ma dem ci àll bi gor sayu mag ne yéen a andi ne bi ma andee say wi nee na sëpp ko nee bi ko sëppee nee ñëw xool say wi ne waa góor ah, li di say bi de xet yi de baax na. neen loolu la ca daal di rek mu doon jaamu katub yàlla mu teela a mokkal alxuraan bari am xam-xam euh, mën a jaamu sunu borom fonk sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku nag ki nga xam ne dafa def al imtisaalu bi bi bil awamir ba noppi nag nekk koo xam ne dafay dafay jëfandikoo li yàlla digaloon roy mag ñu baax ñooñu ni yonent bi royoon maam Ibrahima roy yonent yee ca des euh, Sëriñ Tuubaa royoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yàlla defal ko feeñal ci moom lu bari ci njabootam it mboolem daraja yoo xam ne yàlla defaloon na ko Serigne Touba dana di feeñ loolu day dëggal Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy seen waarit seen mawrit mooy Serigne Touba. biir sama baay moom ak sëñ Abdou Khabour moom. moom daanaka rek moog sëñ bi moom dafa mel ne sëñ Touba ak Cheikh noonu la meloon. léegi nag lii taalibe yi di def taalibe bu dikki aju ci sëriñ bi Serigne Abdou Khafour di leen tërbiya tërbiya boo xam ne euh, loolu Serigne bi wax naan yaqudu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil mooy ñëw mbawoor mu jaayante ak moom nangoo bàyyi lépp ñëw fekk si ko mu teg ko ci yoon woo xam ne ci la jaar ba àgg ci cadre bii mooy wax sëriñ bi ne ko man ndax suma ma ci yow da nga dox sama diggante ak sawara mu ko ah soo ma toppee de xam naa ak da nga dem ba ci kanam di nga gis ci sa bopp loo xam ne eh, ak soppiku la loo xam ne gisoo ko ci woon. li tax ma bëgg nga jox ma ko dama cee bëgg ñetti at ma yor ko ñetti at yi danaa ci def ci moom loo xam ne ndeyam mënu ko cee def bàyyam mënu ko cee def neena dal na fa sa sal dem jango neena ma dal fa sa sal dem jango ne dem teud di noppalu teud di noppalu ba bi ñew dañ bi ñewé kéra kéra ci bis bi rek neena la bi ken roccu ko mu tang jër na bama tibé ñaar tib def sa gi mi na mu mel dañ mané fa wan dam li keppo neena ma dal ne ciass na bla dal koy keppo laax ba lepp nek sama sama yaram neena ma pam dam dal do ci sama bop mu xar ñaari ñaari ñaari gal Nya ma ben ben ben ben benn xaritu di ko ci sama bop di ko ci sama bop ba gif nee ma dal tok waaw nee non la laa mu top serigne Abdou Khafour ba yalla até mi dem ñetti at ñenti at ci la tambuli su aw sawara duko yek mu dem ba xam gis na ne mom bu njëkk sawar dako daan lak mais léegi du lakkatu ko nga xam fu jël loxom ti buy xal def yu bari té lolu euh, lu leer nañ ñu li man tek na ci sama bëtt yalla nak lim ko defal moy ku juddu ci géñoom mom far sawar du ko lak motax ñi ngeen gis ni ci njabotam lañ doon na ñom ñoo liggéeyaloon Cheikh abdou Khafour waaye ñom ñi ngi top Cheikh mustapha Imam sëñ bi ñetti at yooyu itam lim ko wax na moom gis na ndax ñetti at bi nga dem na koog moom waa jamagee dañoo demoon ba yàgg ñu def liir an ñu ba sëñ sëñ Abdou Khabour lañ ne moom la tudd sëñ boobu ñu yebal foofu dafa bëgg a nangu sunu rakk ji yow sëñ moom wax ko sa maam ne ko su fekkee ne da nga koo a yor wala mënoo ko yor léegi xam nga la nañoo ñibbisi sama maam moom ne man de joxe naa ko ba noppi te ki ma ko jox doy na ma ñu daal di ñoom ñëpp waajama ñëw ne dañu koy jël si sama baay taxaw ñoom ñëpp ñu toog sëñ bi ne ko yaw li ma wane woon ak yoon ak li ma bëggoon ak yow tey ji laay won tey waa jama ñi li ma diggee woon ak yéen ñoom ñëpp ñu toog mu ne taalal baraada nga ñëw ñu taal cin li ba mu bax mu ne jàpp leen cin li ngeen sotti ko ci kawam ñu sotti cin li ci kawam ni muy baxe sottiwaat cin li ci kawam eh, sottiwaat baraada bi nga xam ne mi ngi doon bax muy baraada baraaday weñ yi yu mag yi muy satala weñ yi mu jël ko jàpp ci ba set mu ne ko ah yow mu ne am ne ko rel satala gi ne ko yow sowe nga sëñ bi yëkkati satala gi ko ci bopp ne ko yow sowe nga ne ko xoolal xoolal fii mu xool mu ne ko xoolal ci kaw li nga séen fii lan la san bàyyi man day li ma séen mooy asamaan soo xam ne si mu ngi weex tàll ak jigéen ñi jigéen ñi weex tàll muuru mu ne ko kër ca àjjana jëm mooy kër gu mujj ga ay laay di laa yàlla rek kay buur jërëjëf si nekk borom caari jërëjëf ah. ax ah. Abdul Xafur moomu ñu leen di wax nekk na ko xam ne ku am kiimaan la ndax kiimaan googu sax gis nañ ko ci ku ñuy wax Cheikh Ibrahima euh, Bey ñu ngi ko daan wax yabal Bey gis nañ ci kiimaan yu mu doon def te kiimaan yu yëpp mu ngi ko jële woon ci Cheikh Abdul Xafur kon daal nekk na sëñ boo xam ne bu ñu war a roy la njabootam itam ñu ngi fi te la nekkan ci moom ba tey njabootam ñu ngi koy doxal ci wàllu diine bëgg alquran gis nañ sëñ Moustapha euh, jéego yi nga xam ne mu ngi koy dox ci wàllu euh, lislaam sëñ Moustapha Mbacke waaye maakaan law mu xayr ni ma ni anama ala qawmin hatta yuxayru hatta yuxayru ma bi anfusihim la yàlla du nangu lu mayoon ay nit te fekk changé naan ndox bi ndox bi sulaxasi raxasi fi sëñ moom la daan dundee ba fi sëñ bi jóge bu sëñ bi dee dem ma xam ne ñu ngi ne tey de sëñ bi day gont wala day xëy mu tëdd ñu defee ne lu ne lay dem mu ne ah sëñ bi bu dee saret ngay dugg wala sa sa sa oto bii sama sa gannaaw gii sama tànk sa tànk bi na ci mucc ci kawam la daan yéeg di jàll loolu yëpp mu daan ko dund ak moom ak bu ñu toogee ba yàgg sëñ bi di wax mu ne mu ne ñëpp kenn wax dara sëñ bi rek man laa xam keroog ba mu joxe alaaj bi mii ak mam goor mi ak bàyyi laat sama mag ji nga gis mom la jox mom lañu bay gerté ba gerté yi bari mu la di ñew léegi kérok bi nga xamé ne jënd na ci pass ak saret mu dik na ah man de pass wi ak saret mom la ci jënd ba sidu mi daal di koy war dem ba ngumba dik door ko xamna daf ko door mu laam laam yar bi ma laambee yaram bi ba mu yàgg mu ne man te lu ma ëllëg fa ma sëñ bi bëgg jëme fiñ diggé mu bëgg ma faa bu ñu duma door yar du ko def te pass wi man niñ ko bëgg def diko door dóor ko nangul daal di koy war bi mu waree ñu defee ne lay def mu né man luma am señ bi ko am daal ci yab ñom ñett ñepp di ko yóbbu di dawal ba nga xam ne am na fi ñetti fan ci yoon ñu daal dem Touba dem jox ko ko sëñ bi jox ko gone yi muy gone yi tey ñëw tey muy alaaj bi ak ñoom ñi sama baay ndax moom daa jël lépp doomam yëpp jox ko sëñ bi desewut dara yàlla rek la desel ak moom. sama baay moom bi mu daataan génn àdduna moom li ko sëñ bi waxoon ne ko danaa la yàqal sa ndaw waaye man ci sama danaa la defaral sa ma mag gi mu ko defaral itam mooy moom toog na ba nga xam ne feebaram àjjuma bisu àjjuma la feebar. ajjuma ji del siwaat mu de mu nelaw yóbbu nañ ko ci guddi gi ba dem ba mu dem guddi samedi ñu yóbbu ko ba pare muy guddi gi ajjuma ñu yóbbu ko ba sedd samedi ñu jox ko sëñ bi bi ñu yeggee kere sëñ bi dafa ne ah waa gi ne yéen de yéen a ngi wàcc moom yéen waa ci ay waaye jëmm ji xamu leen woon lu mu doon xamu leen tam lu nekkoon ci moom tey nag ngeen di xam bu jógee caari ngeen xam kii kan la li ma la yëgal nag mooy ñaar naa ko booleeg moom Cheikh Ibra Fall euh, danaa ko booleeg Maam Mor Diarra mi ma jur sëñ Touba ci boppam dupa bari dupa dupa am ñoo nga xam ne mom moom ci boppam du fa wédde danaa ko booleeg ñu ko gatandu loolu la daal di wax ne nak jëmm ji nga gis nak directement aljana la jëm waye bis bu mu wàccee liggéey day señ bi ñun boobu yëguñu ci dara mom da xëy xëy ne bale leel kër gi te yokku añ bi ñun ta xam nga dongé yi bokku ñu yam ku ne nan señ bi day bëgg am gan sëñ bi day bëgg am neer tout ñu ñëw ne ko sa njabal bee na ab liggéey suba teel la señ bi yow ne soxna wa mu ne am ah, na ngeen yokk dépense bi ñu nekk di jaabante di dem ak a di jaman di dem ak ñëw ba yàgg soxna ba ne xam naa gan lii ba la am wala gan yu ma am ndeke diggante bi ba yàgg mu daal tok ba yàgg ñu ne ah soxna wa day gan gan ñi sëñ bi doon wax de gan ñi sëñ bi doon wax de bi nga xam ne waa caari ñi indi nañ ko ba ci buntu kër bi nag ñu am pal ñoom ak ñoom dikk daal di ko dikk ak bas mi ñu dik ne ko ah sëñ Abada lañ indi won mu ne ruugi ba fi jaaree ba mu daataan dem ca guddi lama ma tàggu si ne ma ngi gitu. dem mooy lel naxam sëñ Yabal day róom gi amaam ñu jël tàggu nañ ma jëkk dor ko jël man ne loolu moom bis boobu ca kër ga la moo fekk xam naa ne moom ku ku jaral roy la man xaw ma ci moom lenn loolu loolu lu baax rek ci bàyyi ma